bur mom yoni won mune ana lan nga wax si dem ak may sa Fatima bi yaa ne ko woon mu tok xaar bo balek mang lay deglu ndogal mi ngeen mas sa coono ma Mati jërëjëf waxtan nak sutura neena ma gaaw biñu ñu dëgmal la leen jaraaf dénk bes gaaw gaaw gaaw biñu gaaw biñu xanaa kay lu koy way di li koy way di ñaax nga ñaax ko lu koy way di ñaanal mu ñaanal ko soo ma fekkaatee loolu la yalla dogal so tamit fi wala lo loolu la yalla dogal ali mata biiri noppil yalla du bind si fukk ba di ray ci juroom ñen amna yermane ci mom lool yermane joj nak du yeen dong wa tuddi yépp la gis nga Demba kër ñu may sa Fatima Gueye soko demon tay seram dina daw. yow na teble woni ni difu maag buur nen. Ah, waaw difu maag waa kër buur nen. Mhm. waye nak ñeewante xale bi de. ndax yaangi xalaat ne may sa Fatima bu ande ak sutura dem ndaayaan sutura des waa dëkk bi de dinañ ne dañoo tay la doomu jàmbur kuli koddu ndow malik fatim joor kuleeg saa yandu mbaj koddu gelongal sa maam ya bu ñu daan dem xare fii la daan waaje bul fàtt ne benn doom nga ci man di sama xarit di sama wéttal na nga am fit na nga am ngor te na xam lala la yóbbu ndaayaan kon kat yelloo lool ñu ñaanal ko mom suñu dom ji mu dem ci jàmm waaye dikkaat ci law ngiss jamm jam falfatim dess ngay sama sakate mi ci addi bur yirim bañu ma dess ndeer jaaloo nga tol ni gilem te gën koo jëkk ndaak koddu fal mbañ koddu gelongal koddu sama nday barget ak jogamaay ah sala ndeeray sabay may sa fatima su fekkee abonné goo cliquer bind bu xonq biñ bind s'abonner nii soo cliquer ba pare gis nga am na cloche bu génn ci côté bi nga cliquer tamit cloche bi soo ko cliquer gis nga ñetti cloche mooy génn nga cliquer ci kaw fiñ bind toutes les notifications comme nii soo ko defee abonné nga ci canal bi activer nga notification yi lan moo si des bala ngaa dem muy loxo bii jëm ci kaw def ok jëm ci kaw nga cliquer ko wane ni aimé nga vidéo bi te lii nag doo ci fay dara te dinañu jàppale ci liggéey bi ñu def